Queremos trabajar, queremos yi nekk fii ci Argentine tey def marsan bi seen bolub mu ñu fees na dell ginnaaw bi nga xamee ni police yi dakkal nañu njaayu mbedd yi mbala ko it ak di leen ci teg fitna ju metti lool. ba ci bëx ki dem bu gis nañu sénégalais bi nga xam ne ni ñu jëflanteeg moom àddina bi yëpp ñi ngi koy ñaawlu loole nag moo tax ñu wàcc ci mbedd Argentine yi ngir di fesal seenu naqar ci lu ni mel daal di nañu it yëkkatee kàddu di sàkku ci njiitum réew bu Sénégal yi mu daal di leen bàyyi xel 4000 sénégalais yi nga xam ñoo nekk fii te fi nii ñu ngi fiy dund ay jafe-jafe yu metti lool donte ni am na ab association boo xam ne moo fi taxaw ngir sénégalais yi waaye bi ñu leen dekkee suñu micro marchand ambulant yi li ñu wax mooy gisuñu seen bopp ci association bu seen taxawaay ba tax na daal ñii ngi yëkkati kàddu di sàkku ndimbal bu baax a baax. to parce que lii nii dafa metti baas séptimo día de Ramadán. Respeten el día sagrado de los compañeros. en Ramadán ayunando. ñaan nag gouvernement bi Macky bu fekkee yow yaay njiitu réew mi nga dimbali ci ci jafe-jafe yi ñuy dund fii ci Flores métti na trop amuñu benn ambassade amul benn association buy taxaw fii naan dañuy jéem a wàll wala institut wala yooyu noonu waaw fii nag bu ñu sañoon nag da ngeen dimbali. ndax fi Argentine ñi ngi fi. mais dañ fiy dund loo xam ne lu méttee métti la yàgg nañ fi nag waaye biñ fi ñëwee ba léegi jamono yi weesu liñ fi gis mosuñu ko gis ba liggéey ci dëkk bi ba léegi te jàpp naa ne bu nekkee ci dëkk bi di liggéey ñu nekk fi ak mbooloo yàlla def ñu am fi jëwrin muy jëwriñ ñu daayira yi yàlla def ñu am fi association mooy ñu jiiteer sénégalais yi maanaam lépp loo xam ne maanaam daa waroon a xew fii ci réew mi rawat na Flores ñun dañ leen a waroon a gis suñu wet mais bëri na loo xam ne day xew fii ci dëkk bi te duñ leen gis tam na ci loo xam ne dafa jekk jaaduwul ñun ay sénégalais lan ku nekk xam na ne bu ñu jóge suñu réew daan doole moo ñu fi indi mais nag ñun dañ fee nekk nit ñoo xam ne dañ fee ñàkk doole tamuñu ñu ñu jàppale. di wax ne nag dafa jot ñu booloo dëkk ba nan maye mayeetuñu ko li ñu doon baal baalatuñu ko parce que gis nañ ñu gis nañ ni ñuy dundee fii amul kenn koo xam ne tey jii da nga ñëw di fi indi problème ay jullit ñoo fi nekk. ñu yaru ñoo fi nekk daan doole nag moo ñu tax a jóg président Macky Sall mu fekkee yaa ngi ñuy dégg dañ lay ñaan ngir yàlla ak war a suuli dañoo nekk fii ci dëkk bi ay sénégalais ñoo fi nekk waxuñu la de ay ay sénégalais ñoo fi nekk lim bi foo ko natt ko ñi lay ñaan ngir yàlla ak war a suuli nga geesuñu xam ne say doom a ngi dee ci àll bi say doom a ngi feebar say doom a ngi souffrir dañ lay ñaan ngir yàlla loo ci mën nga defal ñu ko fii ci réew mi bu dee conseillère nga dimbaliñu ci. bu dee ambassade nga dimbaluñ ci ndax waa dëkk bi xam ne kat suñu njiitu réew suñu njiitu réew dañ la ñuy soxla fii nii ndax ñun dañ fee néew doole te ngir yàlla buñ koy def nan ko def ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dund problème bi ñiy wax ne ñoo ñu jiite ñun association bi gis ñu leen ci dara ci li ñuy dund. njariñ njariñ amuluñ ko fa gaa yaa ngi nii. amul Sénégal booy tàllal micro mu ne la ñi jiite réew mi fii Argentine association bi jiite réew mi Argentine. taxawu na benn Sénégalais ci dara kenn xamu leen Argentine la fi am lépp mosuñoo gis kenn koo xam ne tey jii ñëw nañ fi jàppale ñu euh, ambassadeur Brésil bi nekkoon Brésil ñëwoon na fi Argentine lan lay ambassadeur di ñëwee fii Argentine ñu xam nañu ñun dañuy dund lu métti au moins bu ñëwoon mun amoon na possibilité pour gis gouvernement bi nekk fi ci dëkk bi noo ay doomam ñi ngi ci réew mi waaw jafe-jafe yi moom yi ñuy jànkoonte liñ ci mën a cité bari na lool ndax xam bu fekkee dañoo nekk ci àll bi di liggéey ñu ne kat dañuy aaye jaay bi d'accord nan ko nangu nan ko ba suñuy xëy sax dañ koy bàyyi xel waaye policiers yi li ñuy def dafa ëpp xam nga ñu ngi koy def parce que amuñu fi ñuy wéeru lu ñu def du mujj fenn ba tax lii di law rey nañ fi ay nit am na ay morgue yoo xam ne boo fa demee ay sénégalais ñi ngi fa billaahi wallaahi taalaahi ba léegi amuñu ci nouvelle boo xam ne ñi jiitee nee na nii lii lan war a def tey xot nañ fi loxob sénégalais ma nga nee tëdd dënn bi day metti mënta yëkkati loxo bi ñëpp gis nañ ko mu nekk lu méttee méttee métti loo xam ne mooy xew fii Flores mooy xew compétition moom mooy xew once lu ñuy dund Argentine dafa metti